ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp ci King Taalif ñu andi leen histoire boo xamante ne bu ama am solo la dina tax nga bàyyi xel sa dund bu baax a baax ni nga xamante ne moom nga ciy doxalee te nga xam ne soxor doonut loo xamante ne lu baax la wala lu gën dafa amoon ñett ñoo xamante ne ay xarit lañ daanaka ay mbokk lañ ñoom ñett waaye nag ñoom ñett ñoo daan ànd di liggéey lépp luñ daan def ñoom ñoo daan ànd di ko def ñu amoon benn jamono boo xamante ne dañ na nag fii nga xamante ne ñu ngi fiy liggéeyee moom daanaka te mënuñoo am dara kon nag duñ changé foo xamante ne nag dañ fay liggéey ñu daal di waxtaan ñu ne am na foo xamante ne day nee nañ foofu moom liggéey am na fa te bu ñu fa demee dinañ mën a liggéey te comme njàmbaar gi nga xamante ne nekkee nañ ko fii di ko def foofu fa demee moom wane ko fa bu boobaa sunu boroom dinañu dimbali ñu mën a am xaalis ñu daan ne waaw ñoom nag ñu daal di ànd dem waaye ñoom ñett nag ku ci nekk am na kiñaan goo xamante ne mi ngi ci sax xol bi ñoom ñett ànd nañ nga xamante ne ci àll bi lañu nekk di dox saa yoo xamante ne guddi jot na ñu daal di tëdd daal di dallu bu ñu xëyee fajar teguwaat ci yoon wi daal di dox ngir dem fa nga xamante ne xam nañ ne bu ñu fa demee danañ fa mën a liggéey ngir loo xamante ne dinañ ko mën a indi waaye nag yàlla di def ñoom ñuy dox ba nga xamante ne àgg nañ ci dëkk ba nga xam ne ñoom bañ fa demee dañoo doon ñett ñu jàmbaar lool nangoo liggéey daal di takku def lépp guddeeg bëccëg ñu koy liggéey nga xamante ne ñëpp sax dañoo mujjoon di leen yéem ndax ñii ni nga xamante ne nangu nañ ko liggéey ak niñ nangoo sonn ak ni nga xamante ne noonu lañ nangoo wute waaye nag sunu borom daf leen a daal di dimbali lool diggante ba ñu fa nekkee liggéey nañ fa xaalis bu bari ba nga xamante ne ku ci nekk ci ñoom bi demee ba nga xamante ne yaa ngi dëkku daanaka def nga lu mat million ci sa poos daal di koy denc muy xaalis bu bari ku nekk daal koy yor sa million ci ñoom ñu daan nag comme yor nan ku ci nekk million li ñuy def mooy nan ñibbi waat dëkk ba suñu demee li ñu am fii ñu boole ko foofu daat fay liggéey boobaa sax dinañu mën a jariñ am ñeneen ñoo xamante ne dina leen ci mën a jariñ ñu dimbali leen ci ñu daan ne waaw comme nag liggéey nañ ba am lii suñ demee suñ njàmbaar gi buñ ko continuer fee li ñu bëgg lépp danañ am danañ ko am ñu daal ne waaw daal di ànd ñoom ñëpp ñu daal di dem bi ñu yootee nag ñoom ñëpp nga xamante ne ñoom ñoo daal di ànd daal di génnaat dëkk ba bi ñuy génn dëkk ba daanaka bëgguñ ku leen yéeg ñu daal di yoot génn dëkk ba ngir na dañuy ñibbi waaye nag bi ñuy ñibbi yoon wi sori na lool ñu daal di wax daan ne ah alal ji de baye boo tee ñu koo jox kenn dajale lépp mu téye ko ndax comme yoon wi dafa bari ay agresseur ak ñoo xamante ne mën nañoo kar te nag ci àll bi lañuy nekk di dox ay fani fan yoo xamante ne dañuy doog a àggaat fan jéem te lu ci nekk mën nañoo dogale moo gën waaye nag su fekkente ne def joxuñ ko kenn su fekkente ne jox nañ ko kenn nag su fekkee am na ñu ñu kar ñu mën a jëflante kooka daal di jël alal ji daw suñu rëccee ñu dem fekk ko fa ñu mën a àndaat ñu daal ne waaw daal di wax loolu daal di koy def ñu daal di boole seen alal jépp ñoom ñett ñépp nga xamante ne ku ci ne boole nga sa alal ñu jox ko kenn ñu ànd di ñibbisi ñoom ñépp ku ci nekk di dox buñ doxaatee daanaka ba guddi jot ñu daal di toog dallu ñu demee ba àgg foo xamante ne gis nañ ndox muñ mën a naan ab déeg wala dara ñu daal di fay naan daal di continuer su fekkente ne bëccëg jot na ñu daal di dallu su ngoon jotee ñu daal di wut fu ñu fanaan daal di xëy daal di teguwaat ci yoon yi bi nga xamante ne nag benn bis dox nañu ba xiif lool nga xam ne ñoom ñëpp nekk nañ ci àll bi daal di xiif nga xam ne waaye nag dem nañ ba nga xamante ne jege nañ ab dëkk boo xamante ne fa lañ mën a war a mën a wutee lu ñu lekk ñu daal di ne ah ñun daal xam naa ne bay boo ñu daal di dem wut fee feene ca keru garab gee ñu toog fa te buñ noppee ñu daal di jéem a kenn dem mën a wuti lu ñu lekk ñu daal ne waaw léegi nag bi nga xamante ne dem nañ ba ca taroon garab ga ñu daal di fay toog daal di wax kenn ci ñoom ñett daan ne ko ah, bay boo ñu jox la dara nga dem ca dëkk ba nekk fee nga dem jënd ji fa loo xamante ne dinañ ko mën a lekkee bu ñu noppee sax ñu daal di mën a dallu fii buñ kër gi seddee ñu jug doxaat xam naa léegi dinañ àgg ñu daan ne waaw nañ daal di def noonu waaye bi nga xamante ne àgg nañ ci garab googu nag daldi toog ñu daal di génnee seen xaalis daldi jox benn waa ji daal ne ko demal nga jënd ji ca dëkk ba léegi moom bi mu demee ca dëkk ba daldi di jënd ji bi mu demee ca dëkk ba daal di jëndi nag ñoom ñaar ñi nga xamante ne ñoo toogoon foofu ndake ñoom ñi ngi kompaloo ak réunion daan ne xelum seytaane daal leen di commencé dugg ñu daan ne ah comme dem na te ñoo xam nga nu ñuy def dañuy bàyyi bu ñëwee ñu daal di koy kar fii ñu daal koy sot sotoo fii daal koy dóor bu deewee ñun ñaar ñi ci des ku ci nekk daal di jël xaalisam bi ku ci nekk daal di jël téeméeri junni buñ ko defee ku ci nekk ñun ñaar suñ xaalis dana gën a duun ñu daal di mën a sakkanle morom ji ci des daan ne ko waaw baye boo ñu daal di def noonu baye boo bu ñëwee kay ñu faat ko loolu kay moom mooy gën a neex sax ñu daal ne waaw ñoom ñu daal di toog nag di ko xaar ngir bu ñëwee ñoom tamit ñu daal di koy mën a rey ngir mën a jël xaalis bi ndakate moom mi nga xamante ne it dem na daal di jënd ji fa mu dem di jënd ji moom tamit ba mu jëndee ñam wa ba noppi dafa wutaale posen ndakate xelam dafa nekk ci moom tamit daal di posene li nga xamante ne mooy ñam wi mu daal di lekk ba suur daal di jël ñam bi posone ko ndax moom tamit nee na xam naa ne bay boo lekk gi de ma posone ko ndax ñoom su ma àggee suñu ci lekkee ñoom ñaan ñëpp ñu daal di dee ñoom ñaan ñëpp ñu daal dee ma mën a jël ñetti millions yëpp su ma demee ca dëkk ba doon boroom xaalis daal noos noos gu mag xelum seytaane dugg ko mu daal di def noonu waaye bi nga xamante ne moom dëpp na ba nga xamante ne agsi na ci ñi nga xamante ne ñoom la waroon a jox lekk gi ñu daal di toog lekk ko bi ñu indee lekk gi rekk ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di koy jàpp daal di koy dóor foofu ba nga xamante ne dee na amatul benn njariñ ñu dóor ko ba mu faatu ñu daal di koy sànni ji fële daal di ñoom ñaar ñu daal di ne gaawantu daal di jël lekk gi bala ñu fee kenn fekk ñu daal di koy lekk te mën a daal di dox daal di dem gaaw ndax xam naa ne comme li ñu dese ñu àgg ca dëkk ba moom defe naa dootul bëreeti waaye ñoom ñaar ñu daal di xëcc lekk gi ku ci nekk daal di jël ñoom ñëpp ñu daal di sukk bi ñu sukkee ñoom ñaar ñu daal di lekk biñ ko lekkee ba noppi nag seen biir daal di metti ci saase saase ñoom ñaar ñëpp ñu commencé foofu di xalangu ba ñoom ñaar ñu daal di fay dee nga xam ne ñoom ñett ñépp ku ci nekk lu bon nga yéene woon sa moroom far sunu boroom daal di dogal ñoom ñett ñépp ñu daal di faatu nga xam ne dafa am benn sàmm boo xamante ne dafa dox ba yam ci àll bi yam ñu faatu yam ci xaalis bi mu daal di jël xaalis bi daal di dem nga xam ne keneen moo daal di jariñoo alal ji waaye ñoom jariñoowuñ ko benn yoon kon nag lépp lu waay di yéene ak lu mën a doon na doon lu rafet waaye su fekkente ne dangaa yéene safaan ba nit rek mën naa këpp ci sa kaw na ni rafetal tey bàyyi soxor gi te yéenante jàmm di yéenante lu baax saa buñ ko defee rek sunu borom mën nañoo dimbali waaye saa bu ñu génnee xolub kañaan rek sunu borom mën nañoo nattu teg ñu ay musiba yoo xamante ne duñu génn mukk mukk kon nañu rafetal di leen wax ngeen wéy di abonné ci seen bii nga xamante ne mooy King Taalif di partager vidéo yi tey sem ngir ñëpp di ko mën a jot incha allah jërë ngeen jëf